télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ngir nga mën a sa jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar ni nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mënee ndax ñëpp xam. Euh, sixième édition ba tey Salcep 2023 salon de l' du cercle des de la banlieue ñu ngi fii ci box numéro 199 bergerie Seydina Djibril bu may ree da ngeen di yëg ni damaa kontaan effectivement dama kontaan dama bëgg lool ci performance yi nga xamante ni cette belle et grande femelle defati na ko waaye nag ci ban catégorie espoir macha allah mu ñëwoon Adèle. defoon fa ay performance yu am solo jëloon fa deuxième ci euh, catégorie bi nga xamante ne mooy femelle espoir waaye elle a confirmé sa suprématie ci lan ñëw fi nga xamante ne moom mooy Salcep 2023 jël première ñu nuyu le ziar la bu baax Djibril. Eh, champion Djibi Trondo maa ngi lay delloo ziar di la nuyu di am mbégte ak contentement ci ñëw bi ngeen ñëw fii pour vraiment euh, def ak man émission. Mhm. mu nekk ci ñun mbégte saa bu ñu euh, taxaweek éleveur boo xamante dafa liggéey macha allah liggéey ba wane liggéeyam ginnaaw bu ñu nattee ñu gis ni vraiment euh, femelle espoir bi ñëpp doon xëccoo yow yaa ko remporté loolu lan la def ci yow Djibril encore une fois. waaw dëgg loolu moom loolu la yàlla def quoi waa Djibi euh, ñu ngi lay jaar bu baax di wax ne ñëw nañ fii ci CEP cercle des éleveurs de la banlieue yàlla def ñu dugal macha allah mu nekk espoir ñu dugal ko. wax dëgg yàlla moom mu gagné ay moromam hmm, avec maturation yu terrible parce que euh, dañ ko natt mu am euh, cent 102 point 8 hmm, boo xoolee sax tëngëj passé nii y deux mois ci ginnaaw amoon na 103 mais bon xam nga natt léeg-léeg mooy loolu doo comprendre mais ñun li ñu soxla rek moom mooy ndam li gagné yàlla def na gagné nañ euh, auteur au garo mi ngi am 102 point 8 LCS mi nga am 153 waay nekk ay performance yu am solo vraiment mu ñëw moom macha allah wane ci boppam mais encore une fois ñëw na ànd ak yeneen i femelle dañ leen di présenté ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir box bi. waaw kii mooy caat kii mooy caat caat doomu Assane 2 la euh, moom magam bu mu bokkal ndey ak baay moom moo jur bel fii comprendre nga euh, moom ñu jël yaayam teg ko ci Assane 2 moom mu wàcc. waaw moom moo euh, jur mbote yi ay cheikh lañu ay vrai jumeau la ñaari jigéen la. moom moo leen jur mboote yi tey lañu am 17 jours waaye tey lañu am 17 jours euh, dama ko teg ci roi Basir Junior ah euh, kii quoi mboote yu juddu waaw kii mooy caat euh, nekk yaay ci espoir bi kii quoi kii. mooy yaay macha allah waay waay waay mooy yaay macha allah waay. Uh-huh, moom mooy yaay mu nekk liggéey bu rafet lool également indi nga ñu beneen tëng tëng bi mooy kan. doomu docteur Boy la. waay yaayu yaayam nekk doomu xel ko mu maa Ibra Diagne mm. kii tamit produit yi maa Ibra Diagne la. comprendre nga parce que ma Ibra euh, dafa jaay pa pa benn femelle mu teg ko ci super teranga benn doomu teranga bu nekk ci moom kii juddu. voilà kii boo xoolee yaayam doomu docteur Bool la yaayu yaayam nekk doomu ko bu ma Ibra Diagne. papaam nekk doomu teranga. oui papaam nekk doomu teranga waaw moom euh, le neuf bi passé la am 11 mois. oui la am 11 mois. également nga ñu beneen tëng ji ba tey. kii mooy madame Cissé. waaye kii moom sama grande sœur bu baax ci man laa ko tuddee comprendre nga ñu koy wax Fadia Sy nekk fële euh, village benn dëkk bu ñuy wax Nganda waaw moom laa ko tuddee kii moom mooy madame Cissé kii euh, le 12 bi passé démb démb la am 8 mois moom mi ngi judd le 12 septembre moom dañoo jël doomu roi salom bu jigéen teg ko ci Latir Latir doomu roi Bachir papam juddu ñu jël doomu Soleil bu jigéen teg ko ci Samba Lawbe euh, yaayam juddu ñu croisé leen ñoom ñaar moom mu juddu. waaye aha moom mu ngi ci huit mois waaye mu ngi ci huit mois na lool ñu daal di ñëw nag ci macha allah waaw bas jàpp nañ sa xar nag jàpp nañ macha allah war koo présenté vraiment macha allah xar boo xamante ni comme ni Jibril wax toujours fépp fu muy dem rek yow yaa koy nga yëg ci mbégte ci euh, li nga xamante ne moom mooy trophée bi mu jëlati encore waaw Seydina Jibril ñu ngi lay siyaar di la bëggee di la jox sa wàcci waay waaw di wax ni macha allah moom wax dëgg yàlla yàlla dogal na su may wax sax dama naan ñoo ko juddulu te nekk na xar boo xam ne depuis juddoom nañ xam ni bu ko yàlla mayee gudd fan dina nekk ndaanaan te Seydina Jibril nag lim ci am mérite la ndax xar tamit am na lu muy def yombul ñëw Tëngéej premier sortem mu battre fa record LCS Espoir ñëwaat sep deuxième sortem mu battraat fi record LCS ci Espoir nekk na xar boo xam ne daal dañuy ñaan yàlla rek mu lafal ko cat ndax li ko boole li ko li ko tënk nag du caaxaan ndax buñ ne Assane 2 ab Abdou fal bu bu nekkee sa côté yaay ak sa côté papa kon loo génnee war nga koo génnee te Jibril moom wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ni ku oyof la ku teey la kuy déglu la ndax ki papaam ba mu koy jël ci man wax dëgg yàlla dama ko joxoon ak yéene te lii la ci yaakaaroon ba pare mu nekk koo xam ne dafa gëmoon xel kom yàlla dogal fu ñu daan tudd maal mu ne xel ko mu bokk na ci maal yi gën ci Sénégal te wax dëgg yàlla waree na ko ci njuram kon dafay nekk loo xamante ni dañ koy rafetlu fu ñu toll te yow kenn du yow. macha allah. amal jàmm jibi euh, macha allah mii nag moo waral coow li moo nekk femelle bi nga xamante ne moo gagné foire bi euh, ci euh, catégorie femelle espoir. Mhm. waa kii moom wax dëgg yàlla wax ci moom dina ñu neex parce que macha allah bii du gulet parce que boo xoolee tëng bi passé am na trophée ndax moom moo jëloon deuxième comprendre nga mooy comme sànq li ma lay wax nii ci sama commencement wax parce que tëng dañoo dem ñu jël ko autour au garrot mu def 103. comprendre nga euh, fii mu jël fii ah, fii bon mu def 102 point 8 mais LCS bu yokku na fii parce que LCS 153 la def ah, kii mooy macha allah yaay ji nekk doomu Assane 2 euh, moom xelkum jur ko xel ko ñaari doomu Abdou Fall ñoo ko jur Adja Kumba ak Léopold comprendre nga. voilà kii mooy macha allah moom moo euh, battre record fii jël trophée bi ci femelle espoir yi waaye. waaw liggéey rafet na ñu lay ñaanal euh, ndam li yàlla na la ji. amiin waa jërëjëf jërëjëf ji bi yow tamit vraiment ñu ngi am mbégte bu yaatu ak contentement ci yow parce que euh, lii euh, dafa neex ndax lii man lay yokk waaw bien vrai que da ngay liggéey mais mu ni dina am fu ma yóbbu parce que lii dina ma jox visibilité comprendre nga xam naa lii man fi ma yóbbu te yow yaay ñëw vraiment ne ma ne ma dama lay defal émission donc yow it dama lay san di la gërëm di wax ne euh, gis naa euh, vraiment euh, jàppandal bi ngay def ci man gis naa fi nga ma bëgg a yóbbu gis naa li nga ma yéene waaye lépp loo ma yéene rek jàppal ne man yéene naa lu ko raw di la remercier di la di la bon jaajëfal di ñaan seen télé bi dem ba nekk télé bu jiitu ci tele yi vraiment ngeen am ci lu kawe seen jorto jërëjëf shukran adresse bi ak numéro de téléphone waaw adresse man maa ngi Kër Massar Kër Massar Sotrac Sotrac fi muy am boo ñëwee ci euh, boo ñëwee ci pharmacie bi ah moom mooy pharmacie bi nekk en l'angle noonu koñ bi mu jàkkaarlool euh, falaa nekk euh, sama numéro téléphone mu ngi nekk 77 444 17 43 waaw wala nga woo ma ci 77 070 86 39 waaye. lu ko yàlla na yàlla barkeel. jërëjëf jërëjëf ji bi kontaan nañ merci Amine. mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV